non man euh, je dirais d'abord euh, c'est une sidération c'est euh, ahurissant même d'entendre ces propos parce que cuune euh, état bi moo waral vague d'immigration bii ngeen gis du leneen ci naka manque d'emploi parce que benn ndaw benn ndaw du nangu am lépp ci dëkkam bàyyi ko fi di jël géej dara leeru ndax li nga yegg. Mhm. au nom de quoi tey bu ñu amoon tey lu ñu bëgg Sénégal ji di di dend ak seen famille di yeewoo ak ñoom dem liggéey wàcc am salaire bu baax di dundal seen njaboot kon gëm naa ne duñ dem jël ay yoon Nicaragua euh, Nicaragua di jël ay géej di dem Europe. Mhm. parce que lenn rek la le manque d'emploi l'État n'a pas fait ce qu'il devait c'est ça la vérité. qu'est-ce que l'État devait faire est-ce que l'État a eh, vocation aussi mooy jox ndaw ñi euh, xëy parce que aussi ñi dem c'est pas des des des des des pauvres entre euh, uh-huh, uh-huh. ñii dem am na ci luñ luñ jàppoon ñu si ëpp bari parce que c'est des bras valides c'est des nit yoo xam ne réfléchis donc fan lañ war a toll ba mu jaral leen ñu ñu ñu bàyyi loolu aussi parce que ñàkk yaakaar ñàkk yaakaar rawul lii parce que wax na ko ku mën a liggéey fexe en sorte ba rassembler cinq cent mille et cetera. Mhm. mais tey bu ko leeroon na bu ko financé Sénégal am le plus. bu ko jox teg si ay gaal yi dem mais parce que yaakaar amatul ce qu'il faisait mais quand même état boo xam ne politique rek la fi nekk. mais vous comprenez oh, alors cette démarche des jeunes qui partent yaa ngi leen di comprendre. bien sûr est-ce que aussi yéen hommes politiques yi de l'opposition vous n'êtes pas un peu responsable. non du tout parce de l'autre côté ngeen di jéem a comprendre xale yi alors que da war a wax carrément que ils rester chez eux et y réussir. maintenant lépp euh, ñu lu ñu waroon def def nañu ko. cest à diir euh, ñoom ba ñëwee xeex ne li fi nekkoon 2012 et cetera. Mhm. baaxul gars yi liggéey voté et cetera teg leen fi mais bañ leen fi tegee li ñu yaakaaroon amul. mooy wax ay chiffres léegi arrêtez les chiffres de grâce 65000 d'emplois anam. mi ngi fi ah xëyu ndaw mi c'est une réalité xëyu ndaw mais bu nekkoon réalité vague d'immigration bi ngay gis. mais ce matin rek ce matin kee kee bu Soumbédioune bi mm. kee bu Soumbédioune bañ ko wane loo gis. ay vieux yuy wax ne carrément ñoom buy ñu mënoon dem dañuy dem gisatoo fa kenn lu ko waral ñu doon nappi. Mm. licence de pêche ñan lañ ko jox. les occidentaux étrangers yi waaw. mais ñoom ñu doon napp di si di si dund ñu doon napp di si dund bu fekkee léegi mënatuñ am luñ euh, nappe amatuñ luñ jaay amatuñ luñ dundalee seen njaboot ni ñuy def les occidentaux ñëw appauvrir ñu ba pare ne ñun nag duñ dem mm-hmm. ñoom buñ gisee les moyens dañuy posu euh, profité dem mais est-ce que war loolu c'est-à-dire maanaam migration boobu elle est irrégulière euh, je ne favorise pas je ne Ah. mais ñàkk pexe pexe la te état bi loolu lañ fa wane cuune état liggéey kese la parce que ndaw yi bu ñu amul liggéey am su luñ jàpp mën a sutur lowu suturle seen euh, seen parent bu ñu feebaree faju dund bu cher mais nu ñuy def. mais est démographie bi moo demee noonu ni Sénégal bindoo parce que nee nañu chaque année il euh, y deux cent mille à trois cent mille jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi loolu satisfaire ko taxu ko taxu ko yomb ah. trois cent mille jeunes chaque année. Euh, euh, euh, l'État doit faire ce qu'on la création d'emplois doo jël ndaw ne kaay nga nii dañ koy former. Mhm. waaw mooy mooy base bi c'est vrai. mais xamuñ ko. cuune état moo loolu kese la. mais ci loolu aussi Macky Sall def na ci ay jéego yu am solo. mais ISEP tey jii nii leen tax a mooy former former ndaw ñi nga xam ne xëy na mënuñu egg ba ci euh, benn niveau niveau d'étude bi. ñi euh, ñoom ay financement mécanisme am na la preuve COJER. Mhm. Ah, da nga leen di interpeller. bien sûr pourquoi pas. sàmm dina dina apprécier. COJER c'est pour la jeunesse non. Mhm. tey bu fekkoon ne COJER def na seen liggéey vague bi ngeen di gis parfois da ngay toog si télé da ngay jooy. mais loolu du rek Cogère c'est tous les jeunes. mais responsable leader du pays. góor jigéen xale. góor jigéen xale ni ñu woon lañ gis léegi. pour lan hmm. parce que l'État ne joue pas son